bu ñu ñaari jumeaux yi mel ni PNJ moom ñëppay am jàmm ci ci Dakar musiciens yeeg mbalaxmaan yeeg rappeurs yi ñëppay am euh, entente bu baax seen biir te li ñu def nii dafay dafay rassemble ñëpp en fait yàlla nañ ci yàlla defal jàmm baax incha allah. gis nañ ne yow yaa jiite équipe bu Faramareen te boobu ba tey ñi ñu ñi ngi gagné. toog ñu yaakaar nga jël final bi. non dañuy gagné match bi dañuy bi léegi dañoo xaw a am. match bi seere na non mais garaaw li ñu koy gagné incha allah bu soobee yàlla bu match bi jeex nga ñëwaat ñu waxaat ci. ana Waly dégg naa nekk fi moom. waaw dafa pétage day xaar ah. naa nag seen calendrier dafa fees dell euh, loo leen di waaj te yéen seen calendrier bu feesee rek te Waly dem États-Unis am na loo leen di waaj. waaw dafa am benn dañuy régler yenn petits détails ci album bu war a génn rek gën a liggéey bi pour améliorer affaire yi incha allah ñu béy jublu si incha allah. waaw ah, du ma waxtaan ak yow nag te du ma wax Cheikh Niang mi nga xam ne seen élément la euh, guitariste Waly la euh, def lu rëy loolu jël doomam tuddee ko Waly loo ciy wax. ah ñu ngi ko ciy sant famille Seck yëpp ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm di ko ci ñaaral xale bi yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla xol ko cat yàlla may ko mag ba tere paxam ak turandoom tamit Cheikh Niang daanaka moom moom ci famille bi la bokk léegi moom Sénégalais la doom la ci Waly yi daanaka tu vois. ils ont une belle relation bu bokkul ak musicien ak euh, patron moo tax ñu am na ñu bëri ñu ngi léegi seen i euh, woykat tuddee ñu ko doom xam naa diggante bu tax ak jaamu ju bari moo tax mu tuddee ko doom incha allah. ok merci. jërëjëf. Jine nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay ñu leen di fay bu ah, baax. ah daa mel ni sonn nga. waaw waaw beneen saa. waaw noo gisee initiative. waaw initiative na ma ko waxoon ko rek rek luñ ko waxaat rek répétition la quoi euh, ñoom dama koy waxaat encore une fois 2013 ba léegi lii lañ see ak ñun mooy lu ñu xewle dañ ñu ciy boole cela veut dire ñoom yëg nañ ñu quoi tamit kenn du ñu gën a gore ku ñu yëg rek ñu yëg la moo waral suñu ñëw ba fii fu ñu woon ak ñu wuy si leen waaw. daal demi final bi seere na de tey match bi métti na. waa trop waa trop parce que ñaari équipe yëpp dañu mën a fubal ba pare Kamil baa ngi fiy wàcc de. am jaay joxal jëf ji mi ngi mel ni tulleeg maale. Ah. waaw waaw waaw mais mbaa yaakaar ngeen jël final bi final bi. waaw mais pourquoi pas ñun gagné rek lañ xam ñun suñu bopp bi meilleur <laughs> rek. Ah. kese nee nañ dafa tukki yaakaar ngeen mu fekkee final. waa dafa tukki dafa mais incha allah incha allah ci kàttanu borom bi xalaat naa am naa njort mu fekkee final bi waaw te seen turandoo bu bees bi nag loo ci wax mu Cheikh ñaar tuddee leen seen guitariste Wally boobu il paraît ne yàggul ak yéen mais. relation yu baax ngeen am ak moom. kookal la. Cheikh Niang turandoo Waly bu bees. ah ok Cheikh Niang moom mooy Waly xam nga mooy Waly moom ça veut tout dire Waly mbay si Ndiaye Mbaye si Ndiaye Ramdaan daal moom benn bopp la Cheikh Niang ayewul Waly aye Ndiogu Mbaye aye Jinne aye Tumaane aye ñun benn yaa ñu gën a xam gis nga ñun da koy ànd. kontaan nañ merci